yàlla yàlla nga wàccee seen dimbal daal di digal Abbas mu woote ci kaw fekk Abbas ku xumboon kaddu la mais ba mu wootee mbooloo mi di di ñëw di wuy si di wuy si mbooloo ma téeméeri na daje fi nee ñu tàmbali ak jaakaarloo ak man ñu tàmbaliwaat a xeex nee na ma wëlbati woote bi jëme ko ci lamsaar yi daal di woote ca kaw nee noonu la mbooloo julli di di dabante di fekk di fekkante ba mbooloo daje fi ñu xeex xeex bu tar bi mu taree yéen tamit daal léegi de xeex bi tar na. daal di jël ngëbub suuf lu mu jëlee ngëbub suuf daal di leen koy sànni wax la mu waxoon ci xarab badar saahatil wujuhu mu mel ni ngëb boobu bi mu ko sànnee ku ne si ñoom rek am na ci fepp suuf yu dugg ci sa bët diir bu gàtt lañ am ñu gàññee leen nga ñaay lu ñu daal di daw ñu dàq leen giirug saqiif képp rey nañ ci lu mat juróom-ñaar fukk mboolem lañ dajaloon ci ay alal ak ngànnaay ak i jigéen ak ak jur lépp jullit di dajale ko mànk ngañaay loolu yi ñu leen jëkk gañe bañ dawoon ak dellu si gën dellu siwaat ba ci biir xare bi moom la alxuraan naan tudd ni wa yawma xunaynin isa ajabatkum kasratukum falam tuxni ankum cheyan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 andi len eh, ay soldat yo xamni gisu len len ñu dak yéefar yi te loolu mooy payu yéefar yi noonu bi noonu am ci ñu kurel bu jëm taif ñen ñi dem fa ñuy wax nakhla ñen ñi dem fa ñuy wax awtaas yonente bi yable awtaas yebal fa mbolo ñu dak len ka jite won mbolo mom moy abu amir al ashari dañ leen dàqee ba dab leen ab xeex jox seen diggante ñu yéefar yi di bu gàtt ñu gañe leen yéefar yi daw waaye nag ci xare boobu ci lañ reye Abu Hamir al Ashari moom yonent bi diggante soosu eh, ñenn ñi jëm nax la it am mbooloo mu leen dàq ba foofa lañ reye eh, Duraydin ibnu Simma màggat moom nga xam ni moo dese woon expérience expérience guerre di joxe ni ba tey foofu lañ ko reye ci mbooloo ma ci ma jëmoon nax la waaye nag li nga ëpp ci mbooloo yi dañoo jëmoon taif foofu mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo fa demal boppam ginnaaw bu mu dajalee màng mi ñu dajale woon mépp te màng mi lañ dajale woon ci ay màng bu dee ci ay nit rek juróom benn junni nit ci diggante ay xale ak ci jigéen giléem yi ñaar fukki junni ak ñeent ci ay giléem bu dee gàtt yi diggante xar ak béy ñeent fukki junni dajal nañ ko ci bu ci xaalis xaalis espèce ni ñeenti junni ogiya ci xaalis dajal nañ ko bi digle ni nañ ko dajale téye ko ci fa ñuy wax al Jiraniya dénk ko ku ñuy wax Mas'ud ibn Amr al-Ghifari yi ginnaaw bu mu jógee ci xarit Taif la ko door a séddale wax ne ni ñu jàppoon am na jigéen bu wax wax Asima bintul Xaaris as-Saadiya moo doon mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nampale waaye bi mu ñëwee bi ñu ko indi ci bi mu xamal yonent bi boppam yonent bi xam xam ko ci ay mandarga daal di koy lalal lal laltaay mu toog ci mu teral ko dal di koy jéggal yow ñu ñu ko ka ndax bokk boobu dox seen diggante moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni aw daggeet la ci xaswatu Xunayn ndax mbooloo mi ëpp ci giru ko Hawaasin ak Saqiif dañu dawoon jëm fa moo tax yonent bi doogu ci demal fa boppam ginnaaw ba mu dajalee màng mi ci Jiraaniya ci weeru sawaal ci menn at mi eh, la daal di jóg jëm foofa Taif ba mu demee daal di koy encercler fekk ñu dugg ci biir sange yi sange wu métti métti yent bi encercler ko wër googu mu ko wër na gaw bi dem na ba mat fukki fan ak juróom am na ñu ni am na ñu ni ñaar fukki fan am ñu ni sax am ñu ni sax am na fa lu mat ñeent fukki fan gaw leen léegi ñoom ñu nekk ci kaw di sànni seen i fet sa fet yu métti fet nañ ko jullit yi ba gaañ leen ba rey nañ ci lu mat fukki ak ñaar ci jullit yi waaye sange si te ticc kenn mënut a fexe ba bëtt ko biñ demee dem dem dem ba mënuñ ko bët yonte bi diisoo ak ku ñu wax Nawfal ibnu Muawiya day lii ni ko du ci pexe mu ne ko ñi ma gis day kundu bu nekk ci biirum pax lañ boo fi saxee dañ ko jàpp waaye boo demee du la wàññi yéen tamit daal dogu ci ne kon nañ leen bàyyi te dem ba ñooñu moom noonu lañ leen bàyyee yéen tamit daal wax Omar ibn Khattab ni ko waxal nit ñi ni leen ëllëg dañuy ñibbi Omar wax ci kaw tamit ëllëg dañuy ñibbi am ñu ne ñibbi di leen bàyyi nii yéen tamit daal ni Omar nee leen ëllëg nañ xëy nañ xëy ci xeex bi ñu xëy ci xeex bi waaye buñ xëyee toogaat encerclé ba noppi ñee fett yi métti na gaañ-gaañ yu métti métti leen ci yonte bi newaat omar ne leen ëllëg dañuy ñibbi ba ya, ba omar déclaré ni ëllëg dañuy ñibbi ñëpp tàmbali tak seen bagage yonte bi ree ree ngir loolu loolu waaye nee na bi ñu laxasee ba nopp nag yonte bi ne leen nee leen nee leen aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna li rabbina xaamiduuna ñu ñëpp ñuy wax loolu ñu ne ko yonte bi ñaanalal yàlla saqif bëgg mu ñaan yàlla mu alag leen waaye mu ñaan ni allahumma ihdi saqifan wa aati bihim yàlla yàlla na nga leen gindi te andi leen ñaan ko wula leen ñaanal léegi nag bi mu demee ba fa ñuy wax Ji'raaniya mu am fa fukki fan ak nangam di séddale di séddale mànget mañ màngoon wax nañu sax xaar na diir bu diir na ab diir ni ngir doon séentu ni giirug Hawaasin danañ ñëw tuub si te buñ tuub see ñu mën leen jox seeni alal ak seen ak seeni seen waaye dikkuñ biñ dikkut nag mu tàmbalee séddale bi muy séddale mi ngi jëkkee ñi ñi nga xam ni dañoo dugg ci islam waaye xamaguñ dëgg-dëgg islam maanaam ngir euh, politique bu euh, xëcc ci seen xol convaincre leen pour ñu gëm islam ñooñu da leen ciy sédd cër yu rëy rëy euh, ndax Abu Sufyaan jox na ko ci xaalis ñeent fukki ñeent fukki ugiya jox ko téeméeri gëléem moo ko joxee téeméeri gëléem mu ne ko sama doom Yasid yonte bi jox lu toll noonu Yasid jox na ko téeméeri gileem ak ñeent fukk ibi mu ne ko sama doom Muhaawiya mu jox Muhaawiya lu toll noonu noonu mu jox Safwaan ibnu Umayya téeméeri gileem